julli yëpp ziar ñëpp sant ñëpp noo ngi gën a yeesa sunu cant sunu borom nu booleeg sëriñ bi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 su ci tolluwaay bi jamono ji korona lu ko waaye wax tooñ ko ndax suñu boobu mooy def mooy dindi korona suñu boobu dañoo sàkk sàkk ko muy wéy ci ndigal luñ ko digal mu def ko fu ñu ko yemloo mu yem fa xanaa nun kay nu war a seet suñu bopp nun ñi nga xam ne doo nekk ci diggante sikki sàkka lu jiitu weddi aku déng-déng nun doomu aadama ñun ñëpp li ci ëpp ci noonu rek la nekk ñi ngi déggante weddi ak ngëlëmte ak réer kon noo war a jugaat jóg suñu bopp seet suñuy suñ suñ tolluwaay ñu war a delloo lépp suñu borom ndax moom mooy def mooy dindi moo xam li muy def moo xam ni mu koy defe moo xam li ko tax di def nun kay danga war a góorgóorlu rek ci gën a xam li ñu diggal nekk ca tax ja dakk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 jenn xalaat walla jenn tiitaange wala ñu togg togg suñu bopp jenn fitna lu nu nu bu nu xëttewoo dara lu nekk ci li war a nekk mooy sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci sëriñ si liggéeyal sëriñ bi ni mu ko doon defee diggam ak boroomam diggam ak yonent bi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 sëriñ bi te fas rekk nekk rek ci li mu nekk loo mu li mu nekkoon rekk ak lu mu jafe-jafe te doyloo ko sëkk ndax fàggul nañu lépp lu mu nu war a fàggul tey ëllëg fàggu ko lu mu war a ñaan boroom tey ëllëg ñaan na ko te jubóo muy pàggu téeb bi jubóo na ci boroomam bu dee ñaan bi boroom nangul na ko ko kon kay dara warul waxtu wu ne ñuy gën a wéetal yàlla waxtu wu ne lu gën a sax ci jaamu yàlla sunu kem kàttan loolu mooy sunu wartif euh, àdduna moom mel na melo bi rek laa mos sa mos a jàgg kon tolluwaay bi mel na ne am nay fitna am nay ay tiis am nay ay jaaxle waaye yooyu yëpp du ci dara bu nu nekkee ci leen war a nekk du nu yëg fitna fitna jenn ju nu yàgg ju nu gàttandu du nu jaaxle ci dara ci met mbir li nu li nu jikk loolu rekk nu jikk wéetal yàlla sax dàkk ci jaamu ko nekkal sëriñ bi ci bëgg doyloo ko ci lépp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 insa wal jinna illaa liya'budun wa loolu rek doy na sëriñ bi moom looloo ko fi andi woon moom la fi nekkee woon boole ci nag di gindi jaam ñi ci seen boroom di wommat jëmale seen borom sëñ bi loolu rek la fi nekkoon looloo ko fi andi ci loolu rek la nekkoon kon nag ñun sant rekk lañ war a def suñu borom mi nu boole sëñ bi sant sëñ bi nga xam ne doon sëkk biir bi tey ëllëg sax ca dàkk nag eh, ñoo ngi eh, jéggalu ñëpp mbaloo xaq ñépp di ñaan ñu ñépp loolu nga xam ne mooy sunu mooy sunu mooy sunu liggéey buñ ca nekkee ak ak jariñoonte rek moo ci juddoo ak ku laa biirante ak ku dimbilante loolu rek moo moo ci juddoo kon nañu góorgóorlu bu baax nañu góorgóorlu bu baax a baax loolu rek mooy kàddu yi nga xam ne eh, sama bopp mooy moom laa sa jiital sa samay bokk sama bokki taalibe sama bokk bokki jullit loolu rek mooy li nga xam ne dara jigunu ci junug àdduna gi waxuma laa junug àllaaxira gi dara jigunu ci loolu taxaw tem ci li ñu mu andi jaamu yàlla te sax ja dàkk gannaaw ba ñu ko wéetalee nag ci lépp xam ne mooy def mooy dindi noo ngi sant ñëpp di ñaan sunu boroom ci mbaaxu sëriñ bi tolluwaay bii nu toll mel na ne tiital na ñépp waaye dan faaw nu ñaan suñu moroom jàmm yépp suñu mbokki jullit yépp suñu mbokki taaliba yépp yàlla daqanu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 xam nañ ne jaamu yàlla moo moo moo yombul waaye mel na ne kenn ku ne ci ñun mu ngi ciy def kem kàttanam waaye nag màggu sunu sunu borom gi mu néexu sa jox jox ak xam bu ñu xamoon lenn loo ko xam ne dina ko jox àqam ñu mën ko ñu mën ko ñu mën ko junj mooy julli ndax la jiitu ci lu war a jaamu war sax ci jaamu ga nu nu nu nu taawu màgg ak suñu bi ci kaw te loolu ci lu rekk la ko mën a feeñale